asalaamualeykum dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen youtube bi di seen kurti yi ngir jàng anglais ci wolof ànd ci ak Miss Saba ba léegi ñu continuer ak yéen ci wàllu reflexive pronouns reflexive pronouns ci wàllu grammaire bi dégg ak li nga xam ne mooy possessive pronouns incha allah dinañ ko leeral ci vidéo bi mu ànd ak ay exemple di la fàttali tim nga abone boo abonné gul let's go myself myself myself dégg myself myself mooy sama bopp sama bopp boo ne I am lonely here dama wéet fii I have to help myself dama war a dimbali sama bopp I am lonely lonely mooy wéetaay here mooy fii I have to help myself dama war a dimbale sama bopp ba léegi ñuy continuer ourselves ourselves mooy sunu bopp ñun sunu bopp ok ma ne we live in the same country ñun ñoo ngi dëkk ci même réew let's help ourselves let's help ourselves nañu dimbale sunu bopp let's help ourselves dégg nga yourself bu fekkee kenn la ñii lay terminer bu fekkente ne mbooloo la f bi day dañ mu nekk v ak es mu nekk selves ok yourself mooy sa bopp ma ma ne ma ne if there is no one bu fekkee kenn nekkul foofu help yourself dimbalal sa bopp if there is no one kenn nekkul foofu help sa bopp themselves themselves themselves themselves dégg nga ñoom mooy seen bopp ñoom ñoom seen bopp exemple ma ne Fatou Ali are coming Fatou ak Ali are coming maanaam ñoo ngi ñëw Fatou and Ali are coming they can guide themselves ñoom mën nañuy guider seen bopp maanaam mën nañuy wan seen bopp yoon bi mooy guide ok himself himself himself mooy boppam koo xam ne góor la mooy himself exemple nga ne my husband is wolof sama jëkkër de wolof la but he can introduce himself in english waaye mën naa introduce boppam ci anglais gis nga maanaam mën naa wax moom mooy kan kenn du ko waxal waxal boppam moom mooy kan ci anglais beneen bi stop mooy herself herself herself herself mooy boppam jigéen nga ne boppam exemple nga ne Fatou is crying in the kitchen Fatou moo ngi jooy ci biir waañ bi she cut herself with the knife moom de daa dagg boppam ci paaka bi mu yoroon ci paaka bi dafa dagg boppam beneen bi stop mooy itself itself itself ok itself mooy boppam loo xam ne du nit exemple ma ne there problème a problem with my phone sama téléphone de am na problème bu ci nekk rek lu tax it charges itself it charges itself ndax dafay charger boppam moom mooy sarse boppam téléphone buy charger boppam dafa am problème ok charge charges léegi ñuy dem nag ci possessive pronoun bi bis njëkk ba léegi dañuy continuer ak règle bi ñu defoon muy dañuy commencer toujours si première personne du simple muy mine mine mooy sama sama bos exemple this one is your phone bii de sa bos la but that one on table is mine waaye bële ci kaw taabul ja man maa ko moom ok beneen bi ci toppat mooy hours hours catégorie gii nag bu ñëwee beneen noo du ci topp verbe du ci topp ñoom bu ñëwee rek phrase bi jeex na hours hours hours mooy sunu exemple ma ne there are many countries in the world am na réew yu bëri yu nekk ci àdduna bi but Sénégal is ours waaye Sénégal mooy suñu bos Sénégal is ours Sénégal mooy suñu bos dégg yours mooy li nga moom su ma ko waxee jarul wax tur bi yours maanaam sa bos yours yours yours exemple nga ne my phone was stolen here sama téléphone de fii lañ ko sàccee woon put yours in your pocket dégg sa bos si sa poset ok defal sa bos si sa poset si sa euh, kii poos beneen bi stop mooy theirs theirs theirs mooy seen bos ñoom exemple ba léegi ma ne take care of of your family take care of your family na nga sa because Fatou and Ali help theirs The Fatou and Ali then you dimble seen bos mo seen family, ok beneen bi stop mooy his his moom du changé comme si adjectif positif bi ak pronom positif bi yëpp ñoo his rek la wax dégg nga exemple Ali is a good student Ali dal, Ali dal, élève bu baax la this book is his. livre bi de moo ko moom moom bosam la dégg nga xam ne waxaatuma tur bi ba mu andee his beneen bi stof ba léegi mooy hers hers hers mooy bosam bosam te benn tur topp ci bosam dégg exemple nga ne Fatou is a good student ba léegi Fatou de élève bu baax la this pen is hers dégg big bii de moo ko moom this pen is hers big bi momo moom bi ci mujj mooy it's it's mook his la ñooy maanaam moom adjectif positif la waaye pronom positif la tamit dara du ci doole ko dara du ci wàññeeku ñuy xool exemple ba léegi bosom bu mu ne this book is nice livre bi rafet na de these covers these covers are its couverture yi de yosam la 皆さん